Assalamualaikum internet jasik TV ñu ngi leen nuyu di leen ziar tey ñu ngi ñëwoon ci Sérif Khoutane école bi nga xamante ni moom la wax complexe Pape Djibril Diouf pour wax ak ñi nga xamante ni njiitu école bi monsieur Thiam ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay. waaw jërëjëf euh, jërëjëf Diassigui TV waa ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci ñëw ngir fi ñëw pour laaj ñu ay ay laaj ci doxalinu école bi ak tëralin bi. man moom maa ngi tudd monsieur Thiam Saliou Saliou Thiam di directeur des études euh, du moyen secondaire de Pape Djibril donc mooy école bi nga xam ni mooy école bu diggu bu diggu doom bi daal maanaam CM la boole ak lycée moom la ñuy wax moyen secondaire sixième ba terminale waaw ñu gis ni école bi élèves yi ñu ngi jàng normal waaye tamit parfois dañuy laajte am na élèves yoo xam ne dañuy tàggoone dañuy jàngi seen parents duñ xam ndax ñoom ñu ngi ci école yi am déet souvent loolu da leen di indil ay jafe-jafe est-ce que mën nañ gën a ñu leeral ci côté boobu. waaw fii nag moom euh, ñun dañuy def le matin le soir dañuy def appel dañuy def toujours euh, contrôle élèves yi xool présence yenn élèves ñoo présent yenn élèves ñoo ñoo absent c'est vrai que loolu du ñàkk quand même du ñàkk parfois ay élèves yi nga xam ni dinañ tàggoo ni da ngay da ngay jàngi.

donc euh, bu ñëwee école di nga xam bu ñëwul école aussi di nga xam et ñun fait tout comme li ma la wax rek dañuy def tout pour def ab appel contrôle absence yi xam élève bu fi nekk ak ak élève bu fi nekkul mais c'est très minime ñu am lu ñu demee noonu saa yu amee rek dañ koy décédé waxanteeg parents bi xool les mesures yi nga xam ni war na ci am nu jël incha allah. gis nañ ni tamit euh, est-ce que tamit professeurs yi ñu ngi jàngale normal. ñu ngi dërule normal ak élèves yi. waaw fii euh, comme li ma la wax rek xam nga privé bokkul ak public privé de am lu ñuy mën a tuddee genre contrat tacite de performance et objectif maanaam euh, du lu ñuy mais lu nga xam ni la boo xasee ba jël engagement yi da ngay jàngale école privée da ngay sàmmonteeg ñoom seen ak ak seen yelleef maanaam da ngay jàngale normalement parce que li ngay jàngale dañ la koy fay boo jàngale wul dul la ko fay donc da ngay ñëw nga jàngale ensuite ñun li ñu li ñu gëm mooy booy jàngalee boo ñëwee xasee bu ñëw fi di jàngale maanaam da ngay topp d'abord programme bi programme bi nga xam ni moom la état bi définir da koy topp ensuite programme boobu da koy jeexal muy classe d'examen bañ a nekk classe d'examen da ngay def tout pour jeexal programme boobu euh, ñun amuñu problème grève amuñu problème perturbation donc euh, quantum horaire maanaam li ñuy li laaj ci ci volume horaire bu jàngale programme bi ñun dañ koy matal ba mu mat donc prof bu nekk da na sas pour nga jàngale normalement yàlla def na aussi euh, ñun bu ñuy recruter souvent dañuy recruter ci prof yi nga xam ne ñu ngi ci lycée yi ñu ngi jàngale ci école yi muy muy muy sixième ba troisième di seconde ba terminale prof yi nga xam ne jàpp nañ ni fa ñu nekk euh, ci ñi gën a xarañ lañu bokk ñooñu la ñuy recruter indi leen fii pour ñu jàngal suñuy suñuy xale. te comme li ma la wax rek dañ koy bu ñuy jàngalee dañ koy teg yoon. teg ko si yoon teg ko ci texte teg ko ci programme bi nga xam ne moom la état bi définir teg ko aussi ci maanaam euh, wàññi li ñuy tuddee absence ak retard. yëpp dañuy fexe ba. da leen ciy ñaax. leen wax wàññi leen absence yi. absence mun ta ñàkk. mais tey jii ne boo feebaree mënoo ñëw boo amee beneen soxla xëy ne mënoo ñëw mais. na néew. benn ñaareel bi retard yi aussi na néew. loolu foofu aussi dañuy teg suñu tànk pour que jàngalkat yi nga xam ne ñu ngi fi mën a jàngale normalement te ci gox bi ñëpp reconnaître nañu vraiment que jàngalekatu Pape Djibril Diouf jàngalekat yu xarañ lañu. Mm-hmm. et ensuite ñu ngi def seen liggéey comme ni mu waree. jërëjëf monsieur Thiam bu ñu jugee si loolu est-ce que tamit mën nga ñu leeralal si moyenu élèves yi. école bi est-ce que élèves yi am nañ compétence baccalauréat bu ñëw est-ce que dinañ bokk ci top des élèves. Euh, très bien loolu aussi mën nañu ci wax parce que euh, école bi nekk na école bi ñu gën a ràññee ci école privée yi nekk ci département bi euh, ba ci Sénégal sax quoi disons parce que école bi def ay résultats la en fait comme Sénégal bi mën nañu ni élèves yi ñoo fi gën a xarañ wala boog élèves dañuy def des résultats extraordinaires mais fii ñi ngi fi yore ay conditions yu nga xam ne école bi dina mettre en place des conditions yi nga xam ne élèves yi ak professeurs bi benn si jaaree dinañ am ay résultats yu baax par exemple daaw vraiment par rapport ak situation bi demee ñu xool taux de réussite ci ci département bi génn nañ ci avec un taux vraiment très satisfaisant Par exemple, on a eu, euh, pour le bac, a eu autour de 45 pour cent am autour de 45 pour euh, pour le BFM dem de de 61 voilà donc c'est des taux qui nga xam ni euh, euh, par rapport à tao, mais nous, ba pour ñun des na war dépasser voilà Nous avons effectivement dépassé. dépasser ren ñun suñu suñu mbébét mooy ñu egg entre 60 à 75 pour cent de taux de réussite au bac et plus de 80 pour cent au café loolu mooy suñu mbébét donc école bi daal nekk na école bu nga xam ni euh, parent euh, parent d'élèves bi am ci école bi confiance ñu ñuy confier seen doom ensuite euh, professeurs yi am xarañ def parce que les les meilleurs la ñuy jël vraiment ci ci ci lycée yi nekk ci aux alentours Eh, certes am nañu ay permanent mais lycée yi nekk aux alentours dañuy dem aussi di ko di ko jénga jéggaane mm. fii ba tëngeej di jël ay prof yi nga xam ne sont bien ñoo di jàngale normalement di jàngale programme di def aussi seen ak ak seen élève ensuite ñun encadrement pédagogique bi nga xam ne moom la ñuy def maanaam animation pédagogique bi mm. day tax ba élèves aussi dañuy gën a am xarañte en tout cas dinañ la jox tous les éléments mm. maintenant Sénégal

donc xëy na sunu yéene mooy effectivement egg fenn fi mais euh, élèves yi li ñu leen wax rek mooy xam na ni am nañu ay ay lakk am nañu ay ay déficit ndax jànguñu année bi seen seconde jànguñu ko ban jeex mais nañu góorgóorlu seen professeurs yi accompagner leen pour que euh, loolu ñu raté en seconde ñu mën ko rattrapé daaw am na luñ ci def ren am na lu luñ ci def ba nga xam ni jàpp na ni xëy na élèves yi assimilé nañu programme ba mun a ba mën a teew

Euh, ensuite 97 bi ñu mettre en place amoon déjà les trois cycles. cycle primaire cycle moyen et cycle secondaire amoon na déjà les trois cycles. rien ne bari non trop mais après dafa màgg. Mhm. dafa màgg de 2003 nous dindit tout le tudde ko euh, pas école. Euh, complexe scolaire par Djibril alors bi ñu ko tuddee complexe scolaire Pape Djibril Diouf la am na euh, ñu ñu nommé fi benn benn responsable bu ñu wax Guède Diouf moo doon moo doon principal bi euh, donc fii mu yore ko donc depuis loolu nag école bi macha allah mi ngi màgg mi ngi màgg mi ngi transformé wu mi ngi dem ci ci norme qualité yi quoi de plus en plus et ñun loolu mooy suñu suñu rôle fii maanaam fexe ba école bi gën a am qualité waaw donc euh, waa Diassigui TV di leen euh, gërëm di leen sant si ñëw bu fi ñëw euh, xaw na bette mais vraiment li am na solo bon boo nekkee ci gox da war a def tout pour que maanaam ci lu waa gox bi yëngu lépp nga jéem ci xamal population yi. nga hmm. am ci information. monsieur Thiam ñu ngi lay jaajëfal waa Diassigui TV ñu ngi rafetlu kàddu yi.